man jara yokkal nga waa géej gi yokkal nga jere jërë ngeen jëf mbokki internet yi mbokk yi bàyyi xel Info 7 TV waat nañ leen siyaar leen ñaanal leen jàmm ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm mbokk yi ñu ngi fii ci eh, Daaru Minam eh, kër Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg lool te wér eh, ku xam ne ne soxna jaar yi nga xamante ni ñëwoon nañ vacances fii ci dëkk bi ak mboolem fu ci réew mi foo xamante am soxna jaara dëkk na fa tey jànge fee ca daara ji ca Poroxaan ñu war a delluwaat ci li nga xamante ni moo di daara ji ngeen gis maam jaara yi macha allah ñu ngi noonu ñoom ñëpp ak seen ay muraay yu jekk way wayjur ànd ak ñoom indi leen euh, waajal leen euh, ñoom ñëpp ñu fas yéene delluwaat euh, kon mbokk yi bàyyi xel Info lépp loo xamante ni tukkee na fi rek danañ leen ko dégtal ànd ak suñu caméraman Modou Gueye mu nekk ci caméra bi gis nañ ne nag am na daayira boo xamante ni mi ngi ci biir indi fi ay ñam ñu am solo waaye lépp lépp rek incha allah dina leen leer ak Info 7 kon woy leen di ñu topp incha allah lu fi tukkee ñu dégtal leen ko. فدومارك بسبال يارا ما جارا وأن جارا ما يصور الفدور ناري تارا ما جارا من جارا من جارا بسوره وهجارا بسبال جارا ما من جارا وأم جارا ما يقر الكبر عليك لما يقر أم جارا بسوس أم جارا ما يقر الكبر بسوبان جارا ما من جارا وأم جارا ما يقر الكبر عليك رحمة أمجا وأملمن تهجى ربي بسبارك